ko gisee da ngay jàpp ne dex la wala dégg moo nekkaat route nationale numéro 3 bi la bi fare ak garage bu Bambey yi ci garage u kalandoo yi foo gis ndox mu bari nga fay seen oto yi ak jakarta yi ba ci saret yi di xuus-xuus bu metti góor gi Maxambay nekk ki yor kàddu chauffeuru kalandoo yi di wax jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy dund kàddu yi ñu yëkkati nag mooy yi nga xam ne bii mooy tooy tooy bi nekk ci suñ kanam rek nga xam ne mooy ndox mu taam taami gis nga ko oto yi nga xam ne bii mooy jaar ci national bi sax jaaratuñu ci national bi dañuy yéeg di fekk si ba fii ndax taataa bi dafa ëpp ci kaw tali bi te fii nag moom ni nu koy waxee toujours rek li fiy nekk ñun ñoo koy def bërki démb rek ci ajuma bi lañ fi mujje wàcce ñaari sarsi camion bu ci nekk ñoo ngi ko jëndee euh, euh, vingt mille francs muy quarante mille ñu renforcer waat fii renfort boobu ñu ko def nag moo tax oto yi di wàcc tali bi di def góos di jaare si ci ñun buntu élevage di dem ma bint même buntu élevage bi sax ñoo ko sëkkaale ba mu àgg loolu nag mooy suñuy jafe-jafe. jafe-jafe yooyu lee ngay gisee ci garage bi nga xam ni foofu la saret yi taxaw ba kenn mënatul dem kenn mënatul dikk jaay ba moom dal di sooxe suud nekk ab watkat ci garage boobu lee. jafe-jafe bi ñuy am ci ndox mi moom gis nga ko nii vraiment lii dafa ñaaw maanaam pour nit ñi fu ñu jaar yoon wi gis nga ni mu mel ambulance bi nga gis fii léegi daa bëggoon jàll mais dafa mujj dëpp mu ngi retourné pour demaat feneen fu mu mën a jaar bu fekkee ne dafa yëb malaat xam nga diir diiraa boobu muy def ci malaat bi ci àll bi tolof tolof bu ne mën naa jot malaat bi ci àll bi te loolu nekkul loo xamante ne war nañ ko mën a rafetlu. waaw ñuy jaay ñam ak sareet yeeg yëpp fii lañ doon gaare waaye mënatuñ ko gaare maire yaa ngi nii xëy si tey parce que amuñu fu ñu teg seen place pour jaay. tom taabal yooyu lañ yaakaar moom lañ yaakaar pour suturlu seen njaboot lii yëpp ay conséquences yoo xamante ne vraiment maire bi war na cee mën a dugal loxoom carrément. moom mu li suut sax. ak Baye Maxa ñu ngi sàkku ci maire bi ñu daal di defar yoon woowu li nga xam ni foofu la nit ñiy jaar foofu la oto yiy jaar waaye foofu la charrette yi jaar. bu ñu mënoon daal comme ni ñu defoon nga xam ne rigole bi demut ñu indi citerne bi mu ñëw màng ndox mi mu dem noonu dina ñu arranger loolu ndax dina baax ndax. sàng rek am na benn oto boo xam ne bii day génn benn oto bu doon arrière dal ci kawam ba ñu nekk fi di ko arrangé ba yàlla def ca ndox mu sedd kon nag mën nañ noo dimbal euh, jëlal ñu fi ndox mi rek nu mu mën a demee ndax rigole bi ci ginnaaw euh, bassin bi mu di ca dem loolu daal mooy kàddu yi nga xam ne bii mooy yi nga xam ne bii moo nu sonal. maa ngi laajee daal maanaam euh, maire ak conseil municipal yëpp. ñoom ci seen jëm bopp ñu war a ñëw jàpp ci liggéey bii nga xamante ne moom moo soxal askan gi muy yoon wii yoon wii nag vraiment euh, sonal nañu metti nañu te mooy suñu njàmbat saa su ne yaa ngi dégg li dalee fii ci fii ñu taxaw a taxaw nii ba ba muy egg joyin kenn mu amul foo jaar kenn amul foo jaar yaa ngi dégg waaw te vraiment euh, yoon wii mooy doole département Bambey te département Bambey vraiment waroon naa mën a weesu fii. mu mel ni Bambey dafa am jafe-jafe canalisation ndax boo jógee ci garage Bambey dugg biir taw féex ca côté bañ naan teen àll ñoom de bu tawee kenn du génn ci sa kër jaaykat ya fa nekk sax dañuy xuus ci ndox mi ngir dem jaay Amadou Sow di ñu indil ay leeral ci mbir mi. waa gis nga instant bii nii ndox mi. man si laa nekkoon di kaas nii quoi comme sama place bi nii tey instant bi nii mënuma jaay kenn waaye instant bi autorité yi laay waxal quoi lii instant bi dafa ñaaw comme tey ñun DV ñun DV xoola instant bi nii ñun fii amuñu canal fii amul canal amul dara benn autorité taxawuñu gis na lamp yii nii sa waa koñ bi ñoom ñoo ko jaayante maanaam def ko ci koñ bi lii dafa ñaaw instant bi nii fii lu mu bon bon bu fekkee benn canal sax waroon na fee am instant bi tey ñu bëri mënuñoo génn affaire yooyu lii dafa ñaaw man loolu rek laa doon ñaxtu quoi dafa metti instant bi ni autorité yi taxaw dañu wacc ba politique ñëw nag ñu ñëw fii di sonal nit ñi mais soo jëlee fii nii tey ku mel ni tey ñaari koñ yi Tawfekh ak ak Diamaguène amul canal courant bi doxul dara dara doxul man l'instant bi nii loolu moom moo metti quoi. garage Bambey ba ci biir quartier yu Bambey nekk loo xam ne canalisation amu fa te ma dafa leen di sonal lool tax askan wi yëpp di joytu ñu defal leen ay canal wala ñu sëkkal leen mbedd mi nga xam ne oto yi ak nit ñi dañ fiy jaar Malick Gningue ngir Bambey 24.